yàlla deful leen ko lu kawe seen njor eh, mi ngi dénkit góor ak jigéen kum ci doon rek mu farlu ci fu ko waxtu julli jotee rek mu bàyyi lépp lu mu jàppoon waaj julli doo ko delluwaat ci yooyu yitte kenn ko yitte woo xam lépp loo ni suñu borom bëgg ko ngir nga mën di xam tamit suñu borom dogal na nga mën a jàng xasida nga di ko jàng ca lépp loo bëgg rek nga fasal ko ci sa bopp ko it say waajur waaye ko tamit mbokki yépp mu ne koo xamee ni tamit mënoo ko waaye yaakaar nga ne soo ko jéemee man ko képp ko am si nii feroo ijji waaye yaakaar nga ne boo jéemee jàng xasida danga ko man nga jéem a fer ijji ndax nga mën a jàng xasida ne li mujj ci ndénkaane nag lu mat a jàpp la ne di jéem alali àdduna lu ci dugg sa loxo rek nga xam ni mu ci duggee ni aayut ne loo am lu mu tuuti rek nga xam ni aayut mu ne boo nee am lu aay nag ñàkk ko moo gën nga am ko ne daal da ngay dogu daal ci ni boo naree am lu aay nga ñàkk ko moo gën am ko mu ngi tubaarkala yàlla yàlla nangu ci wala ñu ci baaxub sëriñ bi mu ne kenn ku ne na jàng ak fukki ak ku allahu min kulli karim tamit nga jàng ko ñetti yoon def ko addiyee borom tuuba ak borom daaru ak ñeen